jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek nañu koy topp ci site internet bi di Net Bi TV li na a fas ci bopp xabaar yi dañ ko doore foofa ca cybersécurité nag a plainte nag la ñu daal di fëgg rek ci kii di engagé boobule plainte nag kii di Mame Ndiaye moom moo ko daal di xaatim daal di koy jagle rek kii di engagé mu nekk nag beneen feuilleton boo xamante ne rek nemmeeku nañ ko ci wàllum yoon jëm ci Mame Ndiaye Savon mi nga xamante ne rek daal nay yóbbu kii di engagé fa mbaxana doone benn xibaar bu nu mel nag suñu nattangoy Seneweb ñoom ñoo ko daal di xam le moom nag daal nay déposé rek. boobu boobulee plainte nak niki àllarba mu nekk plainte boo xamante ne rek ci division spéciale bu cybersécurité la la mu koy toppee muy yëkkati ay kàddu yu tegginewul ba noppi daal di koy sosal ba noppi nag fësal ay doon ay caractère personnel lam loolu lay toppee euh, moom mi di engagé ba tey wàllum xibaar bu ñu jógee ko foofu dañu àddu rek wax ci Abdou Mbow mi nga xamante ne rek tabuñu ko mu nekk député waaye nag bu ñu wétulee rek dina am chance euh, doon député moom Abdou Mbow nekkoon ancien président bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci nguuruk Macky nag bu ñu moytuwee rek dina mën a siéger foofa ci assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci règle yi nga xamante ne rek moom la ñu daal di teg bu fekkee ne Macky Sall mi nga xamante ne moom moo nekk tête de liste bu coalition Takku Wallu Sénégal dafa daal di jël nag dogal bañ a siéger foofa ci assemblée nationale kii di Abdoul Mbow nag la ñu placé ci position bu nu mel ngir nag mu daal di ko fay wuutu ci nu mu gën a gaawee moom ancien président ba woon di Macky Euh, moom moo dirigé woon rek réewu Sénégal ci atum 2012 jàpp 2024 nekkoon tamit euh, chef de file bu coalition takku wàllu euh, Sénégal ci élection législative yi nga xamante ni rek moom la ñu jógee ni ki 17 novembre 2024 naam sax campagne bi moom ci jëmmi boppam rek nemmeeku nañ nag ñàkk teewaayam waaye coalition bi daal di réussir rek ba am lu toll ci 16 sièges ci mbir mu mel nag moom moo jël deuxième waaye nag ginnaaw ndam li nga xamante ne rek Euh, Pastef daal dina koy am te kii di Ousmane Sonko nag jiite woon na ko ñoom ñooñu ñoo daal di am majorité euh, daal di am lu toll ci 130 euh, sièges retour probable Abdou Mbow nag mën nañ koo xaar naam sax commencé na jur nag ay laaj bu fekkee ne rek kii di Macky Sall nag ñëwul ngir participer rek ci campagne électorale yi. contexte bu nu mel dafay daal di wane na rek euh, moom moomu nag amul benn yoon intention siège foofu ci assemblée nationale loolu la waral rek mu daal di ubbi yoon ci ki nga xamante ne rek moom moo ko fa nar a wuutu mu nekk profil boo xamante ne rek ñu ci bëri daal daal ñu koy xam du ñàkk dinañ ci ñëwaat yeneen i jotaayu xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification.